asalaamaaleykum mbokk yi déglu dal leen nag jàmm mbooloo bu takku ñoom ñoo wuy ji démb woote gi yoonu askan wi mouvement pour l'autonomie populaire woote woon fële nga xam ne moom mooy ca place de la nation ngir ñëpp daal di manko wax ne ànduñu ci daan yi nga xam ne waa CEDEAO teg nañu ko ci ndodd réew Mali ëccolikaay bii di Sud Quotidien bi gi ñuy xamal ne ndaje boobu ab kuréel goo xam ne dafa ëmb ay organisation yu bokk ci société civile sénégalaise ñoom ñoo ko fa doon amal te ñoom démb daal di nañuy yi nga xam ne moom la teg euh, ci ndoddu dëkk bi di Mali ñoom de dañu koo def te xalaatuñu sax yan jafe-jafe la leen war a mën a ndax te fu mu nekk nii la ñu bëgg moom mooy xoj Mali wante ñoom li ni mel duñu ko nangu tey duñu ko nangu ëllëg démb culikaay bii di Sud Quotidien duñu xamal kon ne ku ci mel ni Pape Babacar Faye bu ONG panafricaniste moom daal dina gis ne lii nga xam ne moom mooy sanction daan yi CEDEAO dal di jël teg ko ci ndodd ñi nga xam ne ñoom ñooy waa Mali nekkul woon ci loolu lañ ko doon xaar boobu fekk na ne di Chérif Ngay Gaydo nekk coordinateur du collectif ñoo lank moom daal di gis ne Mali soxla na leneen lu dul ay daan ñuy teg ci ndodd Mohamed El Diko bu plateforme de la jeunesse malienne fii ci biir Sénégal daal di am njàqare ak tamit lu ko naqari loolu ci lii nga xam ne moom la waa CEDEAO di teg ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ca Mali ñu jàpp ne jiitu réewum Sénégal di Macky Sall moom ci weeru février bi la fas yéene nag nekk kiy jiite Union africaine tey jii yoo xam yi Macky Sall dina ci sukkandiku wante it bëri na ay dossiers yoo xam ne fas yéene nañ ko teg ci kaw taabalam ci wàllu dossier yooyu naka la ci war a doxalee am nañu ko ci eh, xelal di ko jox yan dicté ak i tëralin yoo xam ne bu ci jaaree daal dina fexe ba mandat ba ñu ko dénk ci bopp Union africaine nekk lu mucc ayib ëcolikaay bi di Le Soleil moo ñuy xamal ne ay spécialistes yoo xam ne dañoo bokk ci association sénégalaise des anciens élèves et de l'école nationale d'administration de France ñoo doon amal ab ndaje goo xam ne ñu ngi ci doon waxtaanee lii xaar njiitu réewum Sénégal di Macky Sall ba ñu ko tegee eh, ci bopp Union africaine ñoom it daal di gis ne am na yenn ci ay yoon yoo xam ne bu ci Macky Sall jaaree eh, dina tax nag ba mu nekk mandat bu mucc ayib wante it am na yenn ci ay poñ yoo xam ne bu toogee rek loolu la war a njëkk gëstu moom mooy ci wàllu kaaraange ak tamit coup d'état yu bëri yi nga xam ne ñoo ngi koy nemmeeku ci biir Afrique ñu desandi ak njiitu réewum Sénégal di Macky Sall ndaxte yow colikaay bii di Dakar Times moom moo koy xamal ne ci wàllu élection locale yi ñu jógee moom daf cee lajj ndax te suñu naataango bii di ma Mamadou Bout Bane daal di ne gis ne yenn gox yu mel ni Dakar Thiès Ziguinchor Kaolack Guédiawaye Parcelles Assainies Kër Massar ak yeneen su fekkente ne mag Macky dafa lajj loolu kon moom mooy firndeel ne dafa mel ni ne askanu réewum Sénégal dañu ko won ginnaaw te ci gox yooyu mën nañu wax ne li ëpp ci ñiy voté eh, ci gox yooyu la nekk kon lii ab bërët la rek te Macky Sall war naa kon am ab jàngat boo xam ne dina ko ci def eh, ci wàllu élection présidentielle yi nga xam ne moom la ñu dëgmal ba léegi ci ñi nga xam ne ñoom ñoo lajj ci wàllu élection information yooyu l'info di ñu xamal ne kii di Idrissa Seck moom mi nga xam ne dafa foogoon ne moom moo teg tànk Thiès élection locale yi daal dina koy firndeel ne moom de jaratu fa dara ndaxte yow culikaay bi di l'info mi ngi ñuy xamal ne yeewee askan wi moom moo daal di daaneel kii di sa Seck foofu nga xam ne moom mooy ci diwaanu ndax ndaxte daal dina fay gagné trois communes ak tamit ville bi ñu ne déet ni waay ñu ne Idrissa Seck ca bureau de vote nga mu doon voté sax foofu ci boppam ñii di waay yeewee askan wi dañ ko faa daan léegi simple politicien la foofu nga xam ne moom mooy ci diwaanu Thiès nekkatu fa ab kàngam moom kay partem bi di réew mi ma nga tàmbalee nërmelu keroog ba fa ay kàngam daal di jóge yu mel ni Déthié Fall Abdourahmane Diouf ak tamit Thierno ma ci ndam lu rëy li nga xam ne moom la waa Yewwi Askan Wi am ci élection locale yi coolikaay bi di enquête ne luy njiig xalifa Sall mooy njaag ndaxte moom moo ko dox moom moo fexe ba Yewwi Askan Wi daal di booloo doon benn kon mën nañu wax tey ne kii di Khalifa moom moo am ndam ci wàll gi Ibrahima Bakhoum nekk ab euh, taskatu xibaar xam-xamam màcc ci wàllu politique moom daal dinay gis ne Khalifa dayoo ga mu amoon te njëlbéen moo koy tàmbalee di am te fu mu nekk nii loolu moom mën na ko topp ba ci élection présidentielle yi ñuy fas yéene amal ci atum 2024 ci wàllu local yi ba léegi waa UMS di xamle ci biir culikay bii di Vox Populi na ñoom kontaan nañu ci na mu doxalee amul benn rëq-rëq guñ ci nemmeeku ak tamit ñàkk féete bi nga xam ne moom la justice daal di ci wane Union des magistrats du Sénégal xam ne ñoom ñooy magistrat yi kon euh, ci wàllu recours yu ñu fas yéene amal ñu daal di koy defee euh, ci ni mu waree ci wàllu recours yooyu sax autolikaay bii di Vox Populi mi ngi ñuy xamal ne waa Benno Bokk Yaakaar ci diwaanu euh, Tëngéej ñoom moom dugal nañu ay recours yu bëri plateforme ànd sàmm jikko yi ñoom ba léegi nag fa ñu ngànkoon démb ak barke démb tey ji lañ ci gën a ngoy maanaam la ñu bëgg moom mooy lépp lu jublu ci mbirum góor jigéen ñu daal di koy neenal fii ci mim réew fexe nag ba ñu daal di koy voté ci assemblée nationale ngir képp koo xam ne da ngay def war a mën a teg ay daan yu diis ci sa kaw wante ci biir colikaay bii di 24 heures suñu naataango yi di ñu xamal ne njiitu réew mi mi ngi doon dalal imam ak ulema yu nekk fii ci biir Sénégal foofu la leen xamale ne moom tànk mi ngi nekk ci bopp réew mi kenn du ma sa dëggal wàllu góor jigéen fii ci mim réew wante waa ànd sàmm jikko yi ñoom la ñu gëm moom mooy ne mbir bi daal na jàll ci assemblée nationale loolu moom moom moo leen gënal na am na ci lu tolloog fukk yoo xam ne bàyyi nañu leen ñu delluwaat seen kër mu amaat yeneen ñaari prisonniers yoo xam ne am nañu bàyyeb ndéginiku ñi si des ñëpp te ñu toll ci fukk ak ñett ñu ràññee ci ku ci mel ni René Capin Bassène ak tamit Omar Ampoy Bodian ñooñu moom yóbbu nañu leen ci kanamu chambre criminelle bu Ziguinchor ngir fas yéene leen déglu ci weeru février bi ñu ma jeexale ko wàllu tàggat yaram bu suba incha allah bu juróom-ñaari waxtu si ngoon jotee suñu gaynde yi war a daje yéenekaay bii di record ne fa ñuy xaar suñu gaynde yi moom moo ñi def seen këmtalaay kàttan ba ñu qualifié euh, ci wàllu demi-finale laas yéenekaay di ko ci feelu di ko xamal ne kon suñu gaynde yi bu subaax dinañu xëccoo ak ñi nga xam ne ñoom ñooy waa Guinée équatoriale les échos nañu nag lépp lu jublu ci seen wàllu karange mot na sëkk ndaxte hôtel bi nga xam ne fa la ñu nekk kenn du jaar ca kanam kenn du jaar ca ginnaaw suñu gaynde yi daal fi mu nekk nii lépp loo xam ne yellool nañu ko ngir war mën a amal match bu mucc ayib dinañu loolee saat yéen kaay di leen xamal kon ne li ci des rek moom mooy jàkkaarloo ak ñi nga xam ne ñoom ñooy waa Guinée équatoriale dóor leen dóor yu a mesdames et messieurs bonjour ils étaient nombreux ces Sénégalais à répondre présent à l'appel des organisations de la société civile euh, pour protester contre les sanctions de la CEDEAO contre le Mali nos confrères de Sud Quotidien nous indiquent qu'il s'agissait donc d'une méga de soutien au peuple malien 2021 yoonu askan wi mouvement pour l'autonomie populaire une plateforme des organisations de la société civile sénégalaise et l'initiateur de la manifestation et ses membres ont affirmé hier leur soutien indéfectible au peuple frère du Mali et dénoncé l'attitude de la CEDEAO qui de façon commandée lui a infligé des sanctions ces mesures qui sont à la fois inhumaines parfaitement illégales au regard du protocole de la CEDEAO et des textes qui régissent son vise à asphyxier le Mali. Et à l'en croire, les dirigeants de la CDAO et de l'UMOA ont montré à suffisance qu'ils n'avaient aucune considération pour la sécurité et la souveraineté de la République du Mali, encore moins pour le bien-être de son peuple. Et retenons que c'est à partir du mois de février que le président Macky Sall va prendre les rênes de l'Union africaine, année qui va également marquer les 20 ans de l'organisation africaine sauf changement. C'est à intronisé lors du sommet de l'organisation prévu les et février euh, prochains. Selon nos confrères du journal L'Observateur qui nous en parle, Macky Sall fera face à de nombreux défis, à savoir la santé, la sécurité, le climat. Donc le président sénégalais aura du pain sur la planche. Dans le quotidien Le Soleil, ce sont des spécialistes, membres de l'Association sénégalaise des anciens élèves et auditeurs de l'École nationale d'administration de France qui formulent doit être la prise en charge de la question de la sécurité, mais aussi du retour des coups d'État. Et nous restons avec le chef de l'État, Macky car dans le journal Dakar Times, nos confrères tiennent à lui faire savoir qu'il a perdu les élections. Et selon Mamadou Moutban de Dakar Times, la perte des localités comme Dakar, Thiès, Ziguinchor, Kaolack, Guédiawaye, Parcelles Assainies, Keur etc. est un signal fort pour ce qu'il attend aux prochaines élections. Et espoirs sur lui. Pour ce dernier, ces villes perdues constituent un important poids électoral et nul ne peut espérer gagner une élection présidentielle en perdant ces localités. Et justement, en parlant de défaite dans le journal L'Info, nos confrères se sont intéressés à celle de Idrissa Seck. Il a été défait jusque dans ses derniers retranchements à Thiès. Yewwi Askan Wi a complètement renversé Idrissa Seck qui a tout perdu à Thiès, les trois communes, la ville essuyer des huées le jour du scrutin. Nos confrères de l'info ne s'en arrêtent pas là, car ils nous rappellent qu'Idy était le maître incontesté de Thiès pendant une vingtaine d'années, mais hélas, il est tombé de son piédestal et se trouve aujourd'hui rétrogradé au rang de leader politique ordinaire. C'est donc une descente aux enfers de Réumi et de son leader qui intervient après de nombreux départs d'illustres cadres du parti, à savoir Déthié Fall, Abdourahmane restés dans l'opposition et d'autres ont rejoint Macky Sall. Pour ce qui est de cette forte poussée de Yewwi Askan lors des locales, nos confrères du journal Enquête trouvent que c'est Khalifa qui a été la cheville ouvrière de l'unité de Yewwi Askan et ces victoires de cette coalition, surtout à Dakar, ont le goût d'une revanche sur le destin. Nos confrères se sont entretenus avec Ibrahima Bahoum, analyste politique, qui trouve que Khalifa a été réhabilité ministres. Toujours à propos de ces élections locales du 23 janvier dernier, l'Union des magistrats du Sénégal, salue la transparence et la neutralité de la justice. Dans le journal Vox Populi, nos confrères écrivent que l'UMS encourage également les magistrats et les exhorte à persévérer davantage dans leur mission avec la phase de traitement des recours. Et justement, à propos de ces recours, nos confrères de Vox Populi nous, font savoir que plusieurs recours ont risque. Criminalisation de l'homosexualité. Le chef de l'État Macky Sall a reçu ce jeudi en audience les imams et oulémas du Sénégal. Et Macky a montré à la face du monde que ce dossier est en train de prendre des biais sérieux. Et la plateforme And Sam Dikoyi n'en démord toujours pas. Selon eux, la réponse du chef de l'État Macky qui dit que l'homosexualité ne sera pas dépénalisée tant qu'il sera à la tête du pays. Cependant, Mamak Targué et compagnie trouvent criminaliser l'homosexualité. Du nouveau, dans l'affaire de la tuerie de Bofa Bayotte, le journal Libération nous informe que 10 des 25 personnes détenues dans la tragédie ont bénéficié depuis hier d'un non-lieu. Deux autres prisonniers ont obtenu la liberté provisoire. 13 autres détenus, dont le présumé planificateur du carnage, René Capin-Bassène, et l'ancien postier Omar Ampoy Bodjan, sont tous maintenus en détention pour être jugés devant la chambre février. Terminons par le sport Sénégal-Guinée équatoriale de ce dimanche à partir de 19h pour nos confrères du journal Le Record. C'est le carré d'As qui est dans le viseur des Lions. Nos confrères de l'As d'ajouter que demain, on aura des Lions revanchards à l'assaut de la Guinée équatoriale. Et pour nos confrères du quotidien du sport Stade, il faudra vite se défaire de ce vicieux zalang euh, ce dimanche. En tout cas, pour ce qui est de la sécurité des y une sécurité totale autour des lions. Toute la rue et les alentours de l'hôtel où ils logent ont été quadrillés et il ne reste plus qu'à leur souhaiter une bonne chance. Et c'est tout à vos journaux et très bonne lecture.